libération ne musiba dëgg nag moo amadi ci réewum Sénégal ndax benn waaye bu ñu naan Amadou Ba moo jël seen xaalitu facture courant bi jox ko cousin bi réel xaalis bi Amadou Ba jàpp ko duma ko ba mu nekk ci coma ñaari fan la ci teg waa ji dee mais da ngay seet loolu rek libération su ne bu doonutoon duwaan lu mu fagaru ak gëstu ga mu amal ci waaxu Ndakaaru kon bile bato téye boon ba fees del ay ngànnaayu xeexukaayu xare géne cabinet googule bato mujjuta bouge meetar ci Ndakaaru ndax teg nañ ko loxo libération fala des ci googule bato ay conteneur yu yeboon ay balu fetal ak teg loxo ay caméra yu Dubai Port Road am luñ fa jot a filmé cabinet ci yooyu la ngànnaay te ne woon ci googule bato gis nañ fa lu tolloog ñaari million ci ay balle de yu gis nañ fa lu tolloog benn million ci ay balle yu calibre 9 cabinet bu weesoo yoon mi war topp googule bato alamaan gu 10 a 10 na ko caa fekk libération ne loo ci mën a xam mooy ay millions ngi bal la soxal te guddi ga sax am nañu ca génn di trafiquer numéro conteneur tandis que Libération revient sur l'affaire des munitions saisies au port et découvertes explosives de la douane.